tontu foofu ok. enquête laa doon mhm. tontu sinon on parle d' adversité de de, de, de par rapport à Amadou Ba mais c' est très normal nit am ay adversaire la concurrence même Boun Boun Abdallah Dionne. concurrence nga concurrence day tax nit jëm kanam concurrence c' est partout ah c' est pas seulement sur le land de nos politiques ah tey instant bi ñuy waxee nii dans plusieurs chaînes de télé y a une émission similaire. xam nga lu tax ñu wax loolu parce que dañoo gis ni AFP euh, euh, Boun Abdallah ba mu nee kandidaa la wut ay nitam tàmbalee liggéey candidat wu bennoo deful lu dul dem jëli ay nitam di seppi di négocier ak ñoom alors que. c'est pas exact c'est pas exact. mais mu ngi mu ngi mu ngi def mu ngi jël ay nitam de en tout cas. non non non c'est pas exact gis nga mbir mi ku ci nekk sañ nga ànd ak ku la neex xam nga ñun tey fu ñu toll ñun ñu nekk ak le le premier ministre Amadou Ba c'est de tout faire pour le fair pour que mu gagner élection yi. dès le premier tour. pour ngeen continuer di di nguuru daal. du nguuru ah, yéen xamu leen c'est-à-dire yéen ah, yéen yéen affaire président ay nguur ngeen ci gis mbir mi romb na foofu c'est pas des prébendes man mii di wax ak yow humblement je suis président de la république. wax naa ko sax dunduma lool dunduma ko dunduma lool. non non non c'est pas les prébendes bu doon bu doon loolu rek da ngay ñëw doon nga di gras. xam nga xaw nga non dama la bëgg expliquer. non ministre conseiller mais est yaa ngi conseiller. non c'est pas loolu sama liggéey la man xam nga li may conseil yow laay conseil mais c'est pour le pays. mais je ne suis pas ton conseil. mais je suis le conseiller du mais moom laay conseil. moo tax ma lay laaj. est li may conseil fii laa koy wax non. non dama est-ce que loolu sama diggante la ki ma. mais ma nommé. d'accord on <laughs> voilà donc essentiellement pour man loolu la woon mais nañu bàyyi gars ku ci nekk jël sa option. oui mais. jël sa liberté analyser dañuy euh, dañuy commenter sa option. Oh, d' accord mais mais ñun on a choisi. li ngay def moom dafa lu la neex. d' mais nit ñi mënoo leen ni damay def li ma neex mais doo leen ci wax.